depuis plus de dix-huit jours wala dix-huit jours pile poil ajaratu. ah Nabo nee naa la man gan laa wala ma fee jaaroon rek pour xool na ngeen def tamit Nabo di ma nattal ci wax ci suba bu léegi dafa bari nan waxante dëgg hmm? mosu koo gis Nabo ordre des avocats nee nañu. ordre des avocats. nee nañu. Mm-hmm. nañu bàyyi avocats yi def seenu liggéey te bàyyi bu ñu demee bëgg gis waa ji Sonko. ñu gazé leen dàq leen nu daw ba du nu mën a exercer seenu droit ci seen client loolu wax nañu ko te looluy dëgg beneen bi ci topp mooy waa ji ne saan soxlawul woon sax yóbbu kaso ci sama gis-gis ndax li muy dund kaso gënu ko métti nekk sa biir kër doo dem doo dikk kenn xamul ci lan nga ne kenn du la seet te yow itam mënoo génn seeti kenn te yow man maanaam pourquoi dans ce pays bu ñu dee revendiquer ne dañu war a maanaam doxal yoon di respecter la loi te maanaam amul benn këyit guy firnde situation gi mu nekkee ni en fait benn këyit mosu ko firnde de tout temps d'ailleurs dañuy expliquer rek comme quoi que le gars à chaque fois qu'il sort dafay créer daal ay attroupement mm-hmm. waaw attroupement mën naa tax ñu tëj la sa biir kër ne la doo génn waaw ndagam dañ laa tëj kay nañ la dem nañ la nañ la nañ la décerner mandat bi nga xam ne mooy tax ñu lay mën a jël si pour yóbbu la ci kaso gi c'est tout aussi mais blocus boobu xoog nu ñu ko mën a tuddee cim tubaab kenn jàppul ne yoon la parce que dañu jàpp ne dafay euh, maanaam faagaagal ak ak yelleef yi nga xamante ne moom la am te kenn ku ci nekk ci ñun nag da nga am ay droit yoo xamante ne dañu ko war a respecter te loolu mooy yoon parce que nag nit booy jiitee dara day fekk yow nga sangu ca ba noppi loolu mooy yoon mais aujourd'hui faire un blocus comme ça depuis des jours ñii ñi xamuñ ci lu mu ne xam nga loolu itam dafay benn créer beneen beneen climat de suspension boo xamante ne de suspicion boo xam ne baaxul ci am réew aujourd'hui il faut qu'on comprenne que maanaam Sénégal ni mu de tournant bi mu toll nii fu mu nekk nii c'est un moment extrêmement important boo xam ne toutes les décisions qui doivent être prises doivent être des décisions mûrement réfléchies et mesurées réfléchi et mesuré c'est hyper important parce que sinon on nage dans le flou dañuy dem nii rek ni mbëkk yaakaar na yoon ba ñuy jël ba yoon bu baax na te fekk yoon boobu lu yoon bu baax bi maintenant le 25 qu'est-ce qui risque de se passer mais normalement il doit rien se passer parce que ce qui s'est passé dernièrement doit nous servir de leçon par rapport ak li nga xamante ne man mënuma comprendre réew moo xam ne du tirer ay conséquences ci li nga xamante ne mooy lu nu dund te ba léegi ñun ñu nekk dans le deuil te ba léegi ñun maanaam ñu nekk ci dëkk boo xamante ne bu ñu tabaxee ba pare lépp ay tojaat ñu war a tabaxaat donc loolu bu ñu ci xësee ba nekk ba pare pour man li nga xam ne moo jëm ci sunu kanam dañu war a éviter loo xamante ne dundoon nañu ko ba noppi bañ a yaakaar ne yow mi nga xam ne yaa nekk en position de force que yow yaa moomee dëgg gi ke keneen ki ci nekk ci wet bi kooku la muy wax itam teguwul fenn. loolu parce que loolu mooy manque de considération wu ci nga nekk ci am réew te doo bàyyi xel li la nit ñi di wax donte ñooñu ak yow bokku leen gis-gis. bañ a nangu contradiction bi. loolu baaxul ci li nga xamante ne moom mooy jëmale réew mi kanam après on n'a pas besoin de leur dire que si vous faites ça vous foncez droit dans le mur parce que ça a été fait et malheureusement on a tapé fort dans le mur. Mm-hmm. que am na ci ñu bëri ñoo xamante ne. ñàkk nañ ci seen bakkin te ba tey ñu ngi woy di ko naqarlu bu ñu boolee limu li passé ak lim yi nga xamante ne moo amoon 2021 ak li ñu jot a dund ci at yii ñu passé nii yëpp wax dëgg yàlla trop c'est trop et à un moment donné on dit stop ça doy na. oui donc. Mm-hmm. le président de la République doit s'adresser à la nation dise ce vingt cinq le 25 on attend de voir qu'est-ce qui sera dit. waaw mais ce dialogue là oui aussi. xam nga bu demee ba xale yi di leen woyal mag yi démb yaa tamit ça ça son sens. <laughs> donc dafa am lu bëri loo xamante ne maanaam il faut ñu jëlee ci ay leçons. ci li nga xamante ne moom la Sénégal di dund le Sénégal est yi pays meurtri en ce moment blessé et peiné on n'a pas besoin de plus en ce moment on a besoin de responsabilité on a besoin d'apaiser li nga xamante ne moom moo fi nekk nii yépp te ki nga xam ne itam dafa nekk ci ci loxoy yoon ñu respecté li nga xam ne moom mooy àq ak yelleefam yi moom ba mu mat sëkk. Mhm. loolu mooy yoon mun nu nekk ci am réew moo xamante ne amnesty day jooy mënuñu nekk ci am réew moo xamante ne société civile day jooy mënuñu nekk ci am réew moo xamante ne opposition day jooy kenn rek ko jooyul mooy parti au pouvoir te gisul jooyu ñeneen ñi. Mhm. je suis désolée c'est pas possible te ki gën a mën a jooy ci ñoo ñëpp nag mooy askan bi parce que ñoom ñëpp nag ci biir askan wi ngay tibbee ñi bokk ci société civile ci ñoom askan wi ngay tibbee ñi nga xam ne faruñoo yow ci biir askan woowu ngay tibbee également ñi nga xamante ne xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi moo leen tax a jóg yaa bokku beaucoup de choses à régler dans ce problème dans ce pays là beaucoup plus urgente dañu ne tous ces morts yi nga xamante ne dañ leen a comptabiliser on veut qu'une enquête soit ouverte li nga xamante ne moom la ñu gis ci ay vidéo te xewul ci beneen réew man de ma vie musuma yaakaar ne le peuple sénégalais est un peuple violent barke yonent yàlla Mohamed man dama mës a jàpp ne sénégalais mën naa kaas mën na wax mais violence bi ma gis. kenn musul woon xalaat ne dina am musuma Sénégal. Mhm. mais bu xasee ba am ba pare quelle est la suite. enquête dinañu ko ubbi dinañu situer les responsabilités à combien de on nous a sorti cette même phrase te avancé wuñu bougé wuñu dans yoota avec ces enquêtes yi nga xam ne Pape Assane wax na ko sànq ci cour des comptes ak yeneen yu ni mel tous ces scandales qui sont là mais il faut que les Sénégalais puissent avoir des réponses ci li nga xamante ne mooy question yi ñuy posé parce que loolu itam lu leen soxal la. Mhm. dama ne bu ñu jàppee ne problème mu Sénégal problème Ousmane Sonko kese la juum nañu. Mhm. événement yi xewoon mars 2021 xew fan yii paase ba mu juriwaat kas yi am juraat Auchan yi ci toj. kenn justifié wu ko parce que ce n'est pas normal dañu nekk ci réew moo xamante ne bu ñu dee tabax kuy tabax doo yàq. déedéet te man gëm naa ne ñiy gàmmu ak ñiy raas du nu benn. parce que am na nu nuy rax ñoo xamante ne yàq gi dañ ci profiter te malheureusement ce n'est pas au bénéfice du Sénégalais. Mmh. mais au-delà de tout cela jàngat gi mooy da nga war a toog ne kon finalement est-ce que lii raison politique kese la. Mm-hmm. bien que moo nekk facteur déclenchant bi. mais au delà de tout cela am leneen lu làqu ci ginnaaw li làqu ci ginnaaw il faut ñu mën a am lecture pour mën ko lire il faut ñu am acceptation pour mën ko nangu te il faut ñu am volonté pour mën a xeex li nga xamante ne moom moo fi nekk nii il faudrait que les choses changent qu'on arrête de nous situer à des dates et de nous mettre dans une situation de tension parce que pour moi la tension elle est là depuis très longtemps c'est une tension réelle fii te noonu la régler te nañu taxaw ci li nga xam ne moom mooy yitte ak soxla askan wi bu nu dee wax nanu waxal lu nu amal njëriñ ñoom itam buñ dee defi rapport nañu defar rapport yoo xamante ne daf nu yitteel par rapport ak sunu alal yi nga xam ne réer na nasax na kenn xamul fan la jaar te booba tey nu wànnent di mu jëkki gëtam ñu gis ay vidéo gis ay nit yor ay fetal di tiire ci ay nit ñu constaté ne ci lim boobu am na ci ay doomu aadama yoo xam ne bal moo leen rey loolu yëpp il ñu def ay enquête nag taxaw wax ci nag loolu mooy yitte bi pour man mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf euh, ajaratu wax ji euh, am na solo Baye Assane le 25 juin bi di euh, dëtmal ginnaaw bi nga xamante ne ci la dialogue bi di ndar képpe président de la république dafa nar a génn wax ak askan wi ci tension bi nga xamante ne ñu ngi koy dund au Sénégal ndax amatina lu choix bu fekkee ni ce même 25 juin. Euh, bi nga xamante ne ci la war a wax ak askan wi ñëpp ñu ngi ci koy euh, ñu ngi koy xaar ci le problème du troisième mandat parce que bu ñu weesoo juin incha allah ñu ngi dëdmal parrainage yi te balaa ñu yegg parrainage yi war nañoo mën a wax euh, ci kan mooy bokk ak kan moo dul bokk bu loolu weesoo yeewee askan wi tamit ne moom dina dem dindi barricade yi nga xam ne moo nekk ci buntu kër Ousmane Sonko lu tolloog 18 jour ak léegi nii lan la ñu mën a xaar ci 25 juin boobu. yal na yàlla def si jàmm. amiin amiin na yàlla def ci jàmm. amiin am loo xam ni daf ma soof. waaw billaay yaa ngi ree lu garaaw. Mm-hmm. lu ma soof la. benn kàddu la bu ma dégg dama kay dégg tout le temps xam nga la mu doon. Mm-hmm. pourtant ci sunu régime surtout ñi fi nekk jamono bi l'État ne reculera pas force reste à la loi force fort sunu baay bi Doudou Ndoye di wax Maïmouna Ndour Faye ne ko loolu waxi dof la ah. ne ko bàyyi leen seen wax yi waxu dof la te dëgg la l'État est l'État l'État reste fort oui l'État est fort. l'État reste droit dans ses bottes oui c'est connu. état bu mu ti doon ci àdduna bi lu mu bëgg a def da def sauf que est-ce que la mu def tegu na ci yoon wala tegul ci yoon foofu la wax ji nekk blocus bi am kër Ousmane Sonko boo dul état doo ko mën état rek ko mën def lu ko neex ba pare tegu ko fenn ba pare di ko expliquer li gën a yéeme nag mooy def loo xam ne du yoon ba pare nga kaa expliquer. ay kilifa yu toog am xam-xam lool di expliquer loo xam ne du yoon maanaam naan la yoon la parce que même bu dul yoon mais yoon la parce que yow nga xam ni yow kii li ma wax ni amul moom mu xam ni xam nga ni li ma wax ne amut mu naan la yoon la du yoon maanaam mais boo gisee nu def ko parce que. ndax looloo waral. toog di di waxtaan plus de deux heures d'horloge et mënuñu convaincre ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan wala sénégalais yi benn xale gone gu ndaw mën naa ni gone sax wax dëgg yàlla euh, boo xamante ne daanaka 30 euh, ans mu ngi soog a mat toog expliquer convaincre nit ñi. mais dama la ne. Mhm. Euh, Issa Pouye Espagne mu ngi laa nuyu. ñu ngi kaa fay bu baax. ndax keroog dama dama amal benn waxtaan dana amal benn waxtaan. Mhm. mu jëw la xam nga jëw jëw bu rafet léeg-léeg da baax na nga kaa egg nit. mu jëw koor quoi. mu ne man daal. waxal ci koom de. waaw mu ne ma ba bàyyi san daal seen émission yi daal toora ma ci gën a. wax na dëgg. wallaahi ni la ma ko wax. wax na dëgg man sax moo ma gënal. ma bëgg ko ne waaw baadu. mu ne ma toora ma ci gënal daal. man mii sax moo ma gënal. day am. dëgg la maman ku naan fii seytaane laa wax dëgg kaa nuyu wax loolu. nu mu ba baax waaye ki la wax loolu. xam naa xalaatam la nag. waaye ka mën a ruube nga nag bu dee ruube moo la loolu de nga ko moom mën nga ko donc dama xamut nag waaye li nga ma laaj nii ko fekk buntu kër jàmbur. usufructus droit de propriété moo la usufruit Amsatou Sow Sidibé seen yaay ji moo nu ko jàngal mhm. ca droit nga ne man maa am doole maa kaa tëj bu dakkul ko def keneen ak ñeneen ak keneen ak keneen c'est la dictature mhm. ko expliquer nee lu dul la léegi nag dictature mooy kan ki am arme yore pouvoir de signature yore xaalis yore lépp ndeysaan am na jamono boo xam ne leen ko woon te bise ngi ñëw dootu leen ko yor yàlla ñu yàlla may fekkee tal man nag yàkkamti naa lool incha allah yàlla ñu yàlla may fekkee tal waaye yàlla may nu ko xulil nguur gi dem ci jàmm ak salaam dénkaade bi jeex ci jàmm ak salaam mu rafet rek ngeen ne ci jàmm ñu ne si jàmm waaye xulil ma damm koñ këri nga ne tëll ma ne tëll man la sawaaj àddunaa ngi nii loolu mooy nga koof ma nga koof ma koof li gàmm yee di wax nga koof ma koof xulil man la àddunaa ngi nii yàlla bu sa teraanga wàññeeku. amiin yàlla na sa teraanga yokk yéen ñi bokk APR ñëpp parce que yéen seen teraanga bu yokkoo maanaam ngeen jóge si nguur gi seen teraanga yokk mooy Sénégal bu avancé waaye ñun tamit suñu teraanga yokk mooy seen parce que doomi aadama kenn kon ñaanal mu néew da nga koy ñaanal mu yokk on n'est pas du tout d'accord avec APR Benno Bokk Yaakaar mais on le dira toujours et sans cesse nous et nous osons imaginer et espérer que nous sommes correctement civilisés moo tax duñu leen ñaanal safaan waaye yéen ñu ngaa def nag yéen ñoo def la bona bona bon la salté la ñaaw la tilim la kenn xamut la mu doon loo xam ni musu musunoo imaginer ne am na xeet bi fii yaakaaruñ ko waaye yéen ñu kaa dundloo du bi sa ngi ñëw dangeen di nekk ci leneen incha allah yàlla na ngeen nekk si jàmm du tee itam li war a nekk nekk. jaaykatu gerte caaf yi sax xam nañu cour pénal international léegi xamuñu ko woon jaaykatu gerte caaf xam nañu ko boo xam ne la CPI di la ko expliquer niveau d'information bi am jamono bi amutoon bu njëkk niveau d'information bi moo déranger léeg-léeg kilifa yi ñu naan y a de manipulation parce que ñoom ca jamono manipulation du tey ça fait quatre cents et poussière qu'on manipule les Africains ñu fen leen ci histoire fausse histoire jël africains yi jàngal leen jox leen ay cours yoo xam ne dañ leen am lu leen gëm gëmloo am ci pàcc bu bari boo xam ne du dëgg àddunay dox yàlla di wane di gën di leeral ba ñu xam ne ah nii la tëddee nasaraan ñëw ne la 1939 45 ba guerre ba jeexee les français ont libéré la France mu faux loolu fen la ala jël africain yi defoon loolu yëpp ñu ci bëri nax leen bett leen rey leen ñenn ñi nga xam ne dañoo amoon téere toul xabalu na lu nasaraan def dafa daf leen a bàyyi ba nu sangu ji mu sàcc téere dal di leen tiire du dox ci ñoom ñu daal di tiire gis yàlla lay def. nu dëkkeek ñoom maanaam noonu la ñu dëkkeek ñun phagocyté ñu jël sunu ay boroom xam-xam jàngal leen gëmloo leen ne koor ak sàmb ne leen ku déggul tubaab amut xam-xam ne leen bu gën bu waa bu déggul tubaab Cheikh Bara Ndiaye déggul tubaab amul xam-xam bu leen ko déglu day manipuler day sos ñu jël koo xam ne jàng na tubaab mu bëri xam-xam lool ca la mu jàng parce que xam-xam nag attention la nga jàng. dañ la kaa sol. Mm-hmm. loolu rek ngay tari. da ngay tari rek. boo ca duggee moom kenn du la attan moo tax am na boroom xam-xami droit yoo xam ne bu noo wax droit fi ne da naan nii nii ngay def. Mm-hmm. naan nii. Mm-hmm. mu waxaat ba ni nga newaat nii. ndax la muy wax day mel ni day mel ni day mel ni asamaan boo boo boo boo nekk rek boo nekkee ci hublot bi di xool asamaan si te xamoon la mu doon. waaye ca jëf jë fa la xam-xam nekk. jëf jë baax jikko ja rafet boroom xam-xam dëgg jikkoom dafa rafet. ca jëf jë. jëf jë mooy application bi. mooy application bi et aller au-delà de tes limites. ok bañ a yem ci liñ la sol rek. elle devient dangereuse. elle est très dangereuse depuis très longtemps. elle devient ahurissante de danger. <laughs> yow xanaa xamoon ah, elle devient. <laughs> quoi corps. dana mel ni la waaj a doon wax de. <laughs> ñu ne ko jàngalal xale bi. mu ñëw ne yaay jax papa ja ne leen mu gis ko benn fan ñaar ñett ñetteeli fan mu ñëw ne leen kii bu bëree xam-xam dana leen jaay de. day tojum réew. <laughs> xoolal waa kër ga naan ko mën na ba mu naan leen dama ne. Mhm. ñu def te semaine xale ba proposé tay la leen lépp. maa la wax loolu ndax gaaw kaar mu ngi. Eh, dindi naa sax kwaasoor koor gi. mooy feebaru nas dama dama yéene des fois may toog semaine bi may absenté parce que yeneen xale yi. mënta ne non non loolu bokk ci. <laughs> nga ne yeneen xale yi am la non non non yeneen xale yi ci télé bi di am chance di di ànd ak yéen loolu bokk ci na ne loolu bokk ci soxna si bokkoo ci loolu. bokkoo ci loolu mami mën naa absenté man mën naa absenté yow mënoo absenté voilà loolooy àdduna. ku nekk sa cër. ki leen ko arrête de faire genre. waaw waaw arrête de faire genre. <laughs> arrête arrête de jouer à la ma sama xarit ba doon wax de jouer à l'occupé <laughs> injoignabilité organisée mu ne ma euh, dama nekk ci. di jaay ba pare am waaye di faire genre. genre ah des fois nga ma ma sama la naan la non je suis naan dafa am fu ma nekk. bëri tiita léeg-léeg mu wax la dafa am fu ma nekk effectivement dafay nekk aussi. c'est que ñu dem nga ni yaa ngi woon fan. dama bëgg a wax rek ne. Hmm. il faut aujourd'hui <laughs> nous comprendre benn affaire. Euh. le vingt cinq incha allah rabbi mhm. président Macky Sall dafa war a wax mais sénégalais yu bëri ci mbedd mi dañ leen di dégg ñu naan ñun xaaruñu discours boobu c'est dans la du loolu sosa ah, c'est dans la rue mm il faut que président Sall mu wax que kilifa bi président nu ngi laa nuyu bu baax di la masaw coono ci seen voyage bi fële ca Ukraine ak Russie wax ko ci njëkk de parce que quand même ils ont tenté un temps puisqu'on parle de diplomatie ils ont tenté kilifa yi dem mm-hmm. nañu waxtaan nañu euh, apparemment Poutine les a bien reçus contrairement à euh, l'autre là bi nga xam ni moom voilà la alhamdulilah moo ñàkk kersa kay waaw moom waaw moom mm-hmm. négocié wu mm-hmm. waxuloo voilà dafa jàpp ndaan dañ kaa attaque dañ kaa tooy bref Poutine moom expliqué na situation bi voilà ak ñoom Lavrov wax di xew nangam na mais dañuy wax ne président Sall discours am xam nga fan la doon safee dëgg askan wi niñ ko doon xaare mooy ba coow la amee mu wax mais li xew la premier le deux moo gën a garaaw li xew mars deux mille vingt et uh-huh. fu ay armes génn nii à un niveau incroyable te amoon naa mars deux mille vingt mais bii dafa pire uh-huh. jekkoon na ci à l'endroit de tout ces victimes comme président moom dañuy gis souvent muy def ay tweet uh-huh. jekkoon na ñu gis lu ni mel on l'a pas vu yéen gis ngeen ko jusqu'ici ñu ne ñu day dem ba le vingt cinq maanaam day bàyyi diir bu yàgg pour wax léeg-léeg ñu ne kilifa du gaaw wax mais léegi léeg am lu dal sa njaboot nag dangay wax yenn Sénégalais yi jàpp ni manque de respect la mm-hmm. ñenn ñi ne dañ koy dégg ci mbedd mi ah président li maa wax ni bul bul mu si mere ñi nga àndal aussi buñ ñu si mere mbedd mi dañuy wax ne ah kii bëggunu mbedd mi dañ kaa wax billaahi wallaahi tallaahi monsieur le président am na ci ay sénégalais yu ñuy jot dañ naan mais yow yéen li ngeen di wax ni yéen yéen a ngi wax koo xam ne bëggunu président loolu bu balka nangu bal nangu lu ni mel ñaaw na trop ci ci gis-gis autant de personnes ñàkk seen bakkan ay xale ñu ne ñoo dañuy toog ba vingt cinq ñu wax dafay ëllëg xel da da ngay poser question man personnel constaté que ah dañ ma ne président bi le vingt cinq laa wax pourquoi tout ce ak li xew nii yëpp ak ni mu demee nii ak ni mu tëddee après nag ñu ne ah en tout cas il moom moo amee prérogative bi moo amee pouvoir bi donc à lui de décider ok mais ñun itam ñun noo la jot moom bu nekkee émetteur ñun noo la récepteur waaye ñun bu ñu bëggul message bi nag quand bien même on est obligé d'entendre et de l'écouter ce message pour xam est-ce que président bi dafa dem ci apaiser te pourtant mën na apaiser wala boog ñi ànd ak président bi comme ni ñoo waxee ak président bi dañoo jàpp ne ñoom bu ñu demee ci sens apaisant dafa mel ni dañoo dellu gannaaw li ñuy wax l'état ne recule pas yow nga amee nguur jàkkaarloog sa askan sa peuple peuple bi ni lii noonu bëgg du ne nekkul ne da ngaa de nekkul ne da ngaa faible de da ngaa raisonnable rationnel gis ne déedéet man yor naa mitraillette ñii ay xale lañu du ma tiire seen kaw mais nga yor mitraillette tiire ne leen waaw war naa leen maal ëpp doole yow yow yow ça va te foofu la ñu war a dem moo tax ñiy wër président Macky Sall ak ñi nekk ak moom ak ñi ko jege sës rëkk ñooñu yàlla na ñu nekk boroomi xel yàlla ñu nekk boroomi xol ya yaatu ya am yërmande bu nu melee ni nun tos tas réew musiba rek lañ kaa digal te nit nag dina nekk ci benn muul boo xam ne. bu saxee ci noppam ñii dañoo yabaate ñii xamuñu seen bopp gis nga ñii gis nga mais bu yàggee mu bu melee na nun bu feebalee comme ñun rek musiba am yàlla bu mu dal kilifa yi koor fi ma daanalee moo di yeewi askan wi suñu nee dañuy dem libérer Ousmane Sonko le vingt cinq moo di ne kon maar day um bu nguur gi taxawee ne moom day braqué wu qu'est-ce qui va encore conflit uh-huh. encore coow y a quelque chose qu'on a constaté am na marche bu amoon Thiès bu ñu wax ne ñëpp daje nañ fa réussir la ci li ñu wax cette marche là n'est pas visible ci presse sénégalaise vous avez remarqué cest à lu tax tout le temps ñuy wax il y a la amoon ak la am maintenant la presse sénégalaise xeex bi noo xeex ni sa commence par la diffusion de l'information sérieusement du question communiqué wala édito nii bon def ko parce que il faut ma def ko ñenn ñi def ñenn ñu def non. ñoom dañuy équilibré. équilibré soit dit non il suffit de dire <laughs> il y a eu parce que ñaari camps ñoo fi nekk le pouvoir ak l'opposition ah ca Thiès kat marche bi ñu bañoon Dakar am na Thiès parce que autorisé là-bas encadré y a pas eu de problème def na nañu marche tranquillement ci jàmm ak salaam waaw ba dee loolu mettez ça en valeur. non ñu jot a autorisé yëpp amul sax. amul benn problème mm. aujourd'hui à Dakar les gens ont interdit les marches. ou rencontres. qu'est-ce que les gens ont fait ils ont respecté la la chose mais est-ce que mën nga dëkk ci interdire ay marche léegi bu ko nit ñi braver nga ne non ñoom ñoo indi problème moo tax ñu dee si le drame de ce régime là mooy ay nit yu faatu ngeen di kaa expliquer ci way parce que dañoo organiser loo xam ni état bi d'accord ci ñu forcer mu dal leen ah kon yéen sénégalais yi bu ñu nee dañuy dox doxu ñaxtu am ci droit yéen ngeen ne non non non waru leen dox doxu ñaxtu bu ñu génnee da nga leen di tiir ay bal waxuma la yi sax. CPA ak saak baak dayeeg dal ca des xulli lépp dana dal seen kaw. nit dafaa def réfléchir. Mhm. loo bëgg a wax. par rapport euh, à son discours le 25 yaakaar nga ni dina wax ci troisième candidature bi. Koor euh, ak Sàmm. yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal. yàlla moom moom mandat bi sénégalais yi sax moomuñu ko. yàlla na yàlla jox mandat bi ki gën ci Sénégal ak Sénégalais yi. xooli mbirab troisième mandat léegi ñaan googu la ma si am yal na yàlla jox mandat bi ki gën ci réew mi benn bu dee dañ ne président Macky Sall day forcer day def day dem élection xam nga dañ ne ñëpp war a bokk moom warut bokk te effectivement loolu mooy dëgg bi loolu moo la dëgg mm-hmm. mais tey supposons je dis basique comme ça. bu ñu demoon ba benn moment ñu ne hey gars yi bàyyi leen ko mu bokk mais bu mu organiser parce que bu organiser non bu munu organiser di perte ci environnement bi ci contexte bi ki forcé ba bokk waroo bokk mu ne damay bokk xam nga day gañ. nga ne gars yi bu ñu ne. na bokk. Hmm. na ñëpp bokk mais moom nañ ko bàyyi mu bokk garaawul. bu mu organiser éthique ak morale éthique ak morale disparaître na foofu. non non xaaral ak yoon éthique ak morale. ak yoon ne warul bokk. waaw waaw mais mais dama ne dama ne dama wax dama wax hypothèse dama ne. su fekkee ni que dem nañ ba. la ñu daloon ca Ablaye Wade la ñu daloon ca Ablaye waat si et seulement si comme elle dit <laughs> ñu ne kat ah waat day bokk mais Wade ba muy bokk organisé wu. waay sunu bàyyi ba Cheikh Gueye organisé donc te loolu la président Macky Sall war a mën a wane ne parce que loolu si xam nga lan moo garaaw ak régime bi. Mm-hmm. gis nga bi ñu nekkee xale. da nga daan bokk koñ ngeen di football am koo xam ne tey papaam jëndal na ko bal ngeen di jouer bal boobu nga crocheté que dëpp dippi mu glissé daanu ñëpp yuuxu reetaan mu jóg xulil bal bi ngeen tuus mu nangu ko xoolal traversé dugg seen kër. ñibbi match ba ma ñu naan ko béy mu naan footballu ma. gis nga loolu. billahi wallahi taala c'est le sentiment que j'ai avec ce régime là moo ne maanaam li ma bëgg a def laay def. yéen a xam. baa ñu tas lido bi. baa ñu tas lido bi <laughs> mu tas lido. jàpp nañu damay tas lido bi c'est drôle ça a l'air drôle mais c'est très méchant. c'est mesquin et à la limite incompréhensible lool nag bu dalee réew. mais waa réew ma amuñu choix. Mm-hmm. moi aujourd'hui yàlla seede nañ du ma tàyyi di ko wax. waxtaan a gën xuloo. waaye waxtaan ba dëgg xuloo am na ñoo xam ngi nii léegi tey looy wax dara dialogue rek la bu amut nii dana am ne daanu dialogué avant pour bañ coow même bu foowee ca coow la jëm buñ jógee ca coow dialogaat mm-hmm. kon dialogue c'est inéluctable mais malheureusement bu fekkee ni yor nga réew président Macky Sall te ci loolu lañ kaa woon ak sa waay te lool moo la dëgg mbir mi du moomeel du sama yëf yëf la noo ko bokk nga wax waxaat wax mu leer nañ la presse sénégalaise à la une daal ne il il il accompagne le président pour ça pour le troisième mandat maanaam di valoriser loolu moo tax presse bi lu mu dal lu dal presse sénégalaise ci contexte bi noo ko teg seen bopp le 25 incha allah bu daanu déglu mais coow li dëgg moo di ne président Macky Sall ak ñi mu àndal Ousmane Sonko mii bàyyi leen ka neexut a dégg de mais ni fi feej ni fi agsi fi ñu agsi nii baleen ka ngeen lijjit la sa des dialogue moom bu dee am waxtaanab dem la rek la war a doon nu may demee. Mhm. nan laay def ba dem ci nan laa nar a demee nan la demee lu ngeen di bàyyi lu maa bàyyi lu ngeen di kii. mais pas euh, genre euh, bon les projets sont là il va falloir que déedéet ba jeexee jeex na ba ba na piw gasi euh, viw euh, ko viw mu rafet quoi sonn quoi on est fatigué ce régime là nous a massacré le régime là a anéanti le Sénégal ci image ci notoriété ci grandeur ci lépp ce régime là a misérabilisé le peuple sénégalais ce régime a rendu la tortuosité si fière dans ce pays kenn mun wax lépp yàlla ñu yàlla dolli sutura yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na def jàmm salaam salaam salaam salaam yàlla yàlla roof baax baax kilifa yi ñu delluwaat à la raison. oui Seydou Gueye koo regardé 2010 2011 mu la wax mu naan kii ku dëggu la. Mm-hmm. ak ña sa des Alioune Fall ak ña sa des. Mm-hmm. Euh, vraiment. baax na de nguur. baax na de baax dafaa jeex bis dina ñëw ngeen tëdd yàlla na leen fi yàlla bàyyi ba sutaat yi te mu ànd ak wér ak tal. mais mais def leen mu rafet lu baax li leen yéene na da ngeen yéene. ba ngeen nu ko yéene woon nun daanu ko am yéen du ngeen ko am. kon yéene leen du du du moomeel ah, kon lii lu mu fi wuti. waaye si njëkk nag njëkk hmm? hmm? mbooloo de kenn du leen toroxal. <laughs>